gouvernement yooyu li des milliards ci réew en terme de centaines de milliards la wax kenn xamul nu mu toll Yoy la sénégalais yi wara di approprier parce que bi may wax modèle bi légui dafa am leneen lu ci top. Moy noo am modèle bu baax baax si tu ne gagnes pas le pari parce que ñun on demande pas de faveur li yenen réew yeb def ba développer le développement ne se réinvente pas c'est les mêmes méthodes qui sont utilisées bu ñu ko defee gën développer ça parce que les ñu le may danaka ñom amuñu ko mais tant que askan wi du approprier ces questions là ba nga xamné budget bi du xaalisu Macky Sall de sama deureum sa deureum deureum soxna ci deureum ki ñëpp ngi ci mais au nom de quoi lañuy ñuy ay nit ñu ci def lu leen neex ba motax buma déggé ma mu euh, gestion sobre et vertueuse. mais combien y a-t-il eu de scandales ci cette dernière année yi mosuñoo am scandale yu toll non au Sénégal kon su Macky Sall taxawee fii naan gestion sobre et vertueuse xam ni peut-être boppam la bëgg a rassurer wala nax boppam waaye xam ni sa gestion ni sobre ni vertueuse. président justement président de la république euh, Macky Sall dafa wax euh, fi nga daanelee ni une gestion sobre et vertueuse ñu gisoon que euh, ce sont les mêmes mots amaana ñoo ko porté à la tête du pouvoir ñu bëri contester cette gestion sobre et vertueuse parce que jàpp nañ ne que ay rapports yu bëri yoo xamante ne c'est produit par les corps de contrôle de la république ñu ngi fi rangé dans les tiroirs est-ce que tu ji mën nañ jàpp ne que au cours des années à venir mën nañu ressentir gestion sobre et vertueuse bi

waaye même waa bitim réew ak multinational yi moo tax ma changement parce que comment ma bëggoon da ngay changer xam nga looy commencer rapport yi nekk fii yëpp table procureur IGE OFNAC euh, Cour des comptes leneen ak leneen des gens ont été épinglés waxuñu un franc waxuñu 100 franc dañoo rat nga ñëw nommé leen ministre 2019 bi ba pare une gestion sobre et vertueuse man bugguma ñuy nax suñu bopp ñun tam sénégalais parce que nit dafa un discours mais dafa am acte yi muy posé ku posé nag acte yu mel noonu depuis 8 ans que tu es au pouvoir bu ñëwee naan la gestion sobre universelle nga naan ay changement soo ko gëmee it yow yaa bëgg a nax sa bopp mais man gëmatuma aucune possibilité de changement ci ADNam la nekk ADNam mooy euh, euh, ci deretam la loolu nekk ñoom noonu la ñuy fonctionner conception bi ñu am ci état conception prébandière la ak conception de jouissance état d'ailleurs assemblée xam nga lu député di wax <laughs> surtout surtout sa mbokk yi moo tax parité bi xaw nañoo sonal booy wax yenn dañ naan waaw waaw ku ay wal sa moome xam nga député buy wax conception bi ñu am ci pouvoir <laughs> mooy nga góox parce que sa ay léegi mu jeex donc loo mën jël nga jël kon ñooñu suñu ñëwee fii di wax changement ay wax rek la quoi. Euh, président Ousmane Sénégal tey boo leen dans la plus grande majorité ils ont une image très négative de l'Assemblée nationale avec vraiment toutes les pratiques qui ont xam ces derniers temps en tant que parlementaire qu'est-ce qu'il faut réellement pour changer cette face cette hideuse de l'Assemblée nationale. Moi, man xam nga assemblée l'élé, léeg ma waxtaan ak ñi fi la ci e législature est-ce que ni la ñu ma c'est pire Il faut a bon euh, dafa am loo xam le système bi la am système bi ni mu bindo ak processus bi ni choisir député mode d'élection mode d'élection bi ak ni vous défé liste yi nga ki parti ba moy tan ba suñu falé na ni du sénégalais ko tan assemblée une réflexion d'envergure xawma un système qui peut être parfait euh, mais sur la répartition entre proportionnel majoritaire nous nuñ avons ko peut-être y am beaucoup plus plus de place pour des gens de qualité plutôt quelquefois même sans avoir une majorité qualifiée rafler tous les départements andi ay députés yo xamné lañ la ni ci assemblée nationale matuñu ko la ci dess nak moy nit ki ci tous ñun ñep ay nit lañu ay sénégalais lañu ay croyants lañu ak croyance bo am nit da nga wara am personnalité. nit mel djegal euh, ma kaddu gi malagu top topp ma euh, maître am su la nee jàddal nga jàdd sol ne soo nee loi bi baxul ñu ne baxna dama lay jox ay exemple très simple daw djeg bi ñuy voté benn loi ci euh, pour pour suñu ak suñu convention fiscale ak Luxembourg ma ñu ne leen lii baaxut lu ne ma wax len ko ñu daal di ne suñu yoon new si voté tey Macky Sall taxaw ne les conventions fiscales avec les paradis fiscaux nous coûtent cher d'ailleurs ñu ngi dénoncer bi ñu nak euh il Maurice ak yu mel noonu pourtant loolu ñu ci bëri ci ñoom xamoon nañ am na ñoo xam ne amuñu niveau am na ñu am niveau bi kon la ngay fortaatu ñu ne la dañ laa fal député jox la oto jox la carburant jox la salaire bu sénégalais moyen amul jox la lu bëree bëri bëri nga xam ni nag di nga taxaw sa kanam boroom la taxoon nga falu li maam Abdou waxoon la taxoon ñu fal la nga war a dem défendre askan wi di taxaw sa kanam borom nga nga dafa am loo xam ci nit ki vraiment moi c'est comme dans la fonction publique rek wala dans la magistrature question indépendance nangam nangam dafa am loo xam ne nit ki le. nit yaay am personnalité doo jiital carrière wala li, bonjour, de def loo xam ne leer na lii voilà, ci askan wi wala la. mais mais yow sa aussi dañ lay reprocher ñàkk wekk bi nga ñàkk député à l'Assemblée nationale. mu mu manifesté woon naka. ah ci li ñu wax na ni euh, yow sa bopp. ma xam non am na ay tur yoo xam kenn du ko fi tudd waaye yow sa bopp. non non lan ban acte moo tax ñu ne. ni ñàkk nga leen respecté. waaw parce que déjà même ni nga waxee ne ni ñu ñu ñàkk euh, li nga xam ne moom mooy niveau et cetera. mais mais askan on a fait euh, pour justement relever ce niveau jàppale avec euh, des assistants parlementaires Il y a aussi député de députés, mais nañu yow sa des leen ont été rawatina. ci ci poser une question askan députés. la des député askan bi avec député députés. ma et j'ai le droit de dire mon opinion à partir de constat je suis l'homme le plus insulté nak, à l'Assemblée nationale. <laughs> maintenant véganté, da fay am man su liggéey jotee xaw ma ci tiaxan. Té nak poste assemblée nationale feesul sama bët Suma démé assemblée nationale liggéey bu précis mom fay yobbu pour li jëriñ askan wi bu ma nekkee nit nag gis ni kii loolu yóbbu ko fa mënuñoo seq lu bari. aw ben problème ak ñom. waaye amuñu benn accointance su ma ñëwee assemblée dinaa dugg def li may def dem ñibbi. suma ma sama temps de parole damay génn xam nga ndax lan je vais te dire pourquoi. yow gis nga vidéo ñak respecté la gis nga vidéo su wax man ñom ñoy jog di saga di perturber ba sama 3 minutes wala 5 minutes ñu fexé ba yaq ba bu essayé yaq limay wax loolu wék nit la. ñeu wax ta kenn ci ñom du wax ba ma yëngatu. nga ñëw wax sa soxla suma ma sama soxla ba paré soudé 85 inscrits mo amone ma nek 5e ci ñi inscrire. les 80, ci togg bo ou 15 yi nga xamné opposition la ñi ca des ñep ku ñew saga, ku ñew saga bu ko man wax ba dem sama bureau xam nga ndax lan man assemblée nationale ñom Vous fa. bu ma toggé ba de réponse ministre bi jot parce que ministre bi interpellé muy kilifa ma war ko jox respect ba suy tontu ma féké su joté ñu yégal ma ministre bi ma nga tontu ma salle bi déglu tontom mandat très bien alors si vous ñu wax rationalisation des dépenses de l'administration. le président Soulevenoko alors a parlé de ci factures et aussi les voitures parce que si vous bu Sénégal 307 milliards de def C'est une voiture qui est ce que vous y a une logique de rationalisation des dépenses de l'administration Oui, c'est léegi la 307 <laughs> milliards ci dépenses jënd ay xam nga président de la république damay bañ li ñu daloon ci benn président mu dul tudd ba dégg naa bi mu demee ñu wax ko mu ne ah ndekete jënd meew ci mbuus am na fii ci réew mi président de la république munoo lu xew nga ne yéeguma budget bi ñuy voté chaque année da koy xool sa conseil des ministres da koy valider donc sa responsabilité moo engagé exclusivement li mu waroon njëkk a def mooy son mea culpa yàq gi ne ci administration man dama ko bind sama téere nee naa administration li fa ne ci yàq Pape Alé doxantul fii ci Ndakaaru koñ boo tourné di nga gis benn oto aade bu ñu fa sànni léeg benn pièce bu ndaw moo ci yàqu ñu wàcc ko fa jënd beneen fa lay nekk ba mu jiggi mu yàqu nit ñi di wekki pièces yi service administration boo dugg couloir yi sax euh, euh, imprimante yeeg yi ñuy génne sànni ko foofu kenn xamul nu mu toll gaspillage bi dama wax d'expérience parce que j'ai été dans l'administration dama xam li fa ne ci yàq kenn xamul nu mu toll te moom bi mu ñëwee système am dañoo continuer loolu tey demal et puis fi mu war a dooree du foofu Pape Alé est-ce que xam nga ministre u Sénégal ñaata oto la gis naa ministre bu ñu bëggoon bu ñu jëndal benn euh, Land Cruiser mu ne non parce que beneen ministre bi euh, full option lañ ko jëndal nañu delloo andil ko full option ministre boo dem këram di nga fa gis benn wala ñaari 4 x ñaari berline et cetera bu amee muus sax muus buy dem vétérinaire am na oto bu koy yóbbu loolu ci gaspillage kenn xamul nu mu toll.

conseil économique social et environnemental lan lay jëriñ ci réew mi HCCT euh, lan lay jëriñ ci réew mi lañ fa def emploi la monde créer ci ci budget auto ci téléphone ci qui ak qui ak leneen nga dellu si waat muy nous sommes parce que nous mënul créer emploi parce que tu n'as pas su mettre en place un système pour que suñu secteur privé éclore et créer de l'emploi l'État doit se substituer pour créer de l'emploi ku nekk andi ay nitam loolu nag yàgg na ci administration ku nekk suñu nee recrutement administration day am ministre bu ne directeur général bu ne premier ministre président la république ku nekk day am listam ci loo xam ne léeg-léeg nit ñi amuñu benn qualification man bi may ne impôt andi nañu ba andi koo xam ne nee na moom boucher la woon musul xam truc bi dafa toog rek ñu ne ko jël nañ la parce que militant nga mhm. te boobu jamono les diplômés sont Ce sont les plus grands postes Il y a l'administration. Je ci administration waxuma la rek ci mais qualité administration parce que l'administration administration Sénégal n'est pas une administration du développement pour le moment il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à réformer mais tant que le clientélisme politique il y a une priorité évidemment l'administration, malgré d'excellents éléments dans l'administration. quelles sont les réformes majeures au niveau pour rendre notre administration beaucoup plus efficiente je dis même pas efficace mais efficace. Je pense que si nous ci administration l'administration, nañ ko administration dañ par voie de concours pour être sûr d'avoir les meilleurs sénégalais qui postulent mais li ñuy wax les décisionnaires ak les ku ñëw rek andi say nit ñu ne dugal leen ça pose problème ñaareel bi administration surtout nag yenn administration technique il faut ñu génne ci politique il faut que ñuy def appel à candidature pour poste yu postes Togo koy def Côte d'Ivoire koy def waxuma la sax ay pays Europe mais fi le président se lève pour dire bon est-ce que militant parti ou le wala militant de parti. pourtant bokkoon na ci recommandation ou assises nationales justement ni que suñuy euh, tey ji promouvoir ben poste dañuy def appel à candidature. mom defena suma que nous signé woon na charte assise. sul nako na ko léegi mu gouvernance. au deuxième tour. et l'un des piliers des assises est à l'Assemblée nationale. bon. justement allez-y ah, continuez yooyu li ci des nag mooy mettre en place des règles strictes xam nga tant que yenn phénomènes yi comme lu mel ni corruption nit def lu ne fang ñu jàpp ko après mu mun a au pire des cas dañ koy relever de sa fonction mu dem toog këram jàpp ñaamuram ak ay milliards am milliard boobu dërëmu Massamba ak Mademba jaaykatu caaf bi nekk fii dërëmam nga fa benn waaye rek jël ko toog ci te tabax ay immeuble yóbbu feneen ak feneen parce que justement bu dem bay nommé à certaines responsabilités dañuy seet ko xamné ne mu mën na leen defal li ñu bëgg moy li wax la conception jouissive du pouvoir les fonctionnaires rigoureux duñu leen jox mu kenn responsabilités mais li ci ëpp suñu suñu nommé à certaines responsabilités moy ko xamné suma ko won ne ko dagal ma dagal ma ki jox ko li mu dagal ko bayil bi defal li mu def ko y a énormément de choses comme ça yo xamné maintenant nak modernisation bi ça vient après modernisation informatisation etc. etc. mais ce ma wax c'est prioritaire suñu faire évoluer l'administration pour nous donner une administration de développement. y y wax ci euh, modernisation ñu wax ci secteur vitaux yi nga a ne moom agriculture élevage pêche Mais na ni malgré jafe-jafe yi am rawatina ci wàllu taw bi ñu ngi dem ci autosuffisance bi de quel loolu 2017 nous promettons nous autosuffisance alimentaire en tout cas. autosuffisance en riz. xam nga alimentaire sax yaatu na biñ ci gënoon cible ciblé te mooy li li ñuy lekk ñun li ëpp lu ñuy dundee. le riz. 2017 lañu ne woon dootuñu importer riz est-ce que ñu ngi importer riz ba léegi xam nga toujours li ma wax rek dama bëgg di commencer toujours ci li nga xam ne moom la ñu diggee askan wi parce que naxe bi dafa bëri mun nga ñëw def sa discours joxe ay chiffres le sénégalais lambda mënul contrôler li chiffres yi ñun ñi sax léeg du chiffres yëpp nga mën a maîtriser. amna yo xamné so maîtriser chiffre bi tam nekkoo ci terrain bi bu mun wax mais tay agriculture du Sénégal nit ñi contester nañu les rendements ta à juste titre ma ya 3 ans dama def ben liguey dama jël les surfaces euh, amblavé ma xol le rendement à l'hectare les surfaces yi nga xamné ministère bi joxe nako ni li lañu bay surface bi lañu bay ci guerte nga jël le rendement à l'hectare nga xool la production atteindre ma woon un million de tonnes yi ñu ne moom la ñu am boo dellusee ci beneen critère mooy li nga xam ne moom la huiliers yi di jënd bu ci gën a mag di Sonacos ak yeneen yu ndaw yi ay Copé wala ñoom seen nga xam dañuy jënd tuuti nga génne li nga xam ne moom lañ ne chinois ak vietnamien jënd nañ ko mm-hmm. boo paree il va rester 600 000 tonnes yo xamné ne na 600 600000 tonnes de bouche la sénégalais yi dund. objectif Sonacos par exemple c'était de de 1500 tonnes pour année bi on sait que euh, ci en tout cas ben 24 jours ñu ngi ci pratiquement 3 de l'objectif. ci li 500 objectif. donc tonnes peut être 150 000 tonnes ou. 000 tonnes 150 000 tonnes autant pour moi mais ñu ngi ci 2 ou 3 de ci li ñu des aspects techniques xam nga damay damay don def considération préalable mais nous devons aussi agriculture Nous mhm. devons reconnaître qu'il y a un échec de leur politique agricole parce que les fondements, les goulots d'étranglement l'agriculture sénégalaise, il y a les faibles rendements Si on a de très faibles rendements entre 0,3 et 1,3 tonnes à l'hectare Soit vers le sud zone grande pluviométrie ñom ñoy egg à peu près ay ay ay ay 1,8 tonnes Voilà l'agriculture de contre saison moy l'agriculture irriguée mom mo mën yenn 2,5 tonnes mais lolu tout touti la parce qu'on a que 2 d'agriculture irriguée au Sénégal té lépp du guerre. Le problème bi nous moy réglé la problème le problème de l'eau mënuñu bay uniquement saison chaque année nous wax nit ni ma la ma liiral la ko rek parce que damay bëgg étude li mu wax daaw mooy euh, euh, toutes nos productions agricoles sont en hausse et plusieurs filières affichent des niveaux jamais atteints depuis l'indépendance xam nga loolu la waxaat ren. répétition mot pour mot. mais sauf qu'il dit que les performances pour cette année. waaw loolu laa lay wax dama lay la performance yi performance yi su su amoon foofu. doo toog tey naan Sonacos euh, directeur général Sonacos dégg naa ko mu naan c'est mal parti wala nangam annoncé déjà un échec. ils ont porté plainte contre des paysans d'ailleurs. oui l'autre élément maintenant faible rendement euh, accès à l'eau Nous, avons a agriculture en contre-saison comme en saison mais comme le courage jël nos responsabilités dans mon programme la naa revitalisation des vallées fossiles entre autres comme amuñu suñu courage parce que benn réew frontalier nee un problème te li ñu bokk mooy inverse may nañu ñu mën a jël jusqu'à 6 milliards de mètres cubes ci année ci li nga xam ne euh, excédent ci crue bi la boobu ba léegi ñaata régime ñoo ñoo tegle ñemewu ñu def li ñu def pour mun revitaliser des vallées nga xam ne du yem rek ci agriculture ak yeneen ak yeneen deuxième bi la faiblesse des terres cultivées nous avons 3 800 000, de millions 3 800 000 euh, hectares de terres arables. arables. 250 ans et quelques yoo ont que mooy yi mais ci loolu on ne cultive réellement que sur 14% on a beaucoup de travail à faire. Ah, C'est problématique problématique. là annoncé Nous ci à Agropole Sud D'accord D'accord. je veux rester sur hmm. les résultats concrets. Hmm. aujourd'hui le Sénégal N'est autosuffisant en ah, aucune production. Ben même yi nga xam ne sax amoon nañ ci de jëloon ci option par exemple dans le domaine de de l'élevage a une option ci l'aviculture mais comment un pays peut ouvrir comme ça sauvagement ses frontières on a maintenant des Français des Marocains qui s'installent avec des capacités yoo xam ne te li produire c'est destiné à l'export d'abord la ca des snacks peut-être partie yi am cholestérol les ailes et les cuisses nous ne nous pas ñun ñu donc fondamentalement li toujours problème système la gis nga agriculture bi bu leen fait ni premier pilier du PSE c'était la transformation structurelle de l'économie tey fan lañ transformation structurelle Industrialisation. de l'industrialisation industrialisation de l'agriculture je vais vous donner des statistiques pour vous dire que c'est un échec total statistique bi ma lay jox commencé il va réussir le pari de faire faire secteur tertiaire parce que nous avons judd rek secteur tertiaire bi c'est la structure économique des pays développés nga xamné terminé nañu phase industrialisation dem vers une distribution beaucoup plus large mais tay nous avons une ñun ci suñu statistique Fiñu nous avons bu mi commencé le PSE dafa def diagnostic bu am solo ne secteur tertiaire bi 64 le secteur secondaire bi 17

et secteur agricole 19 donc yow monnaies mune aspirer digue Sénégalais je vais transformer structurellement l'économie Moi, l'industrie va monter en flèche ban industrie lañu am Sénégal vous pouvez me citer 10 industries dignes de ce nom et l'autre jour à l'Assemblée nationale le ministre a dit qu'en deux ans je vais industrialiser le Sénégal <laughs> Il dit dit il dafa dafa dafa yow ci ay politique industrielle aujourd'hui l'industrie représente 0,97 de ton budget secteur primaire c'est pour alimenter quoi même là où on a un peu de performance pour revenir à l'agriculture man damay rus bu si chinois yi ñu jënd dans mon ouvrage j'ai développé j'ai dit que ce c'est pas les filières qui sont en cause filière arachide contrairement à ce qu'on nous dit lu baax parce que l'huile arachide huile de tournesol c'est les deux huiles yu ñu recommandé mm-hmm. organisation mondiale pour la santé pour que togg togg bu yàgg ñun xam nañ ñii bu ñuy togg diggante sóor russi nangam nangam ñoo gën a gudd togg ci àdduna donc ur bu baax la ñu am chinois yi bu ñuy jógee Chine ñëw dugg ci àll bi di fanaan ci village yi ngeen foo ne caaxaan moo leen tax a jóg dañoo xam ni c'est une mine d'or mun nga ci def arachide de bouche coke bi mun nga ci def euh, charbon mun nga ci def sabon mun nga ci def des produits dérivés lépp a baax fan bi nag mooy ngooñ gi ñëpp xam nañu saison sèche c'est le meilleur aliment pour le bétail. finalement kon foofu. Euh, donc état bi daf ko subventionné par exemple arachide bi waaye sécuriser ou ko parce que euh, si euh, le prix plancher bi ñu wax francs yooyu moom la ñu proposé agriculteur bi chinois yi ngay wax proposé à 350 mais on va vendre au plus offrant li oui c'est bon pour le producteur tout de suite parce que en dehors du. Mais à long fait... terme, il tue la Sonacos. Ouais, ah non, parce que ah, même attends, semence, non, je dis, c'est bon pour le producteur, c'est mauvais pour le pays. Mm -hmm. C'est bon pour le producteur parce que bay dafa metti nek ci all bi ci naaj bi ci taw bi récolter gissoko koo jaay dafa metti wala ñu ñew intermédiaire ñew jël ñu yobu ñu naan camion yaangi Sonacos ngay xaar ñu fay la ñu naan bon yi fayaguñ ko ak MP loolu dafa metti kon su chinois ñewé teew mi teew état bi fu néwon 210 chinois bi né fay naa 300 et quelque c'est bon pour le producteur, mais c'est mauvais pour le pays. Mais la question fondamentale que ça pose, Chinois ne ñëpp pas ni du ñu caaxaan liggéey ci perte pourquoi Chinois bi peuvent pas fay 310 ou 315 Et à état bi ne marché mondial def nañu suñuy liggéey 210, cent dix ça veut dire que les choses se faisaient sur le dos du producteur mais c'est pas bon pour le pays parce que produit si suñ ko transformé fille, créer de la valeur ajoutée ci lañ ciy am dara Sénégal exporter am des devises c'est comme le poisson. c'est notre état bi ñoom disent que il subventionne l'agriculture donc en amont nous ñu ko subventionné ba pareil. après di jënde aussi au même type au même prix que les chinois donc ils vont mettre un prix plancher à 210 d'autant plus qu'ils mettent beaucoup de milliards dans la subvention et c'est ça qui s'explique pourquoi l'État n'a pas acheté euh, plus que ça. Euh, effectivement je pense que vers qui va la subvention. oui Soudan, C'est là où pose le problème subvention vers qui ça va. est-ce que uh-huh. c'est le producteur est-ce que c'est l'intermédiaire est-ce que c'est la senior fan kan moo moo moo capté dëgg de la en fait ça n'arrive pas et aujourd'hui est-ce que aujourd'hui est-ce que c'est internautes hein, effectivement hein, parce que dañuy accueillir euh, justement Haj Mansour Diop mm-hmm. euh, on le voit xam naa euh, Facebook baa explosé hein il y a des milliers quand même d'internautes qui réagissent sur notre page Facebook c'est ça mu ngi explosé Aïcha parce que ça a ngi ci 9000 et quelques léegi ñu ngi ci 7800 et quelques téléspectateurs Nous xam dañuy certains direct ak ñun sans compter yeneen vie alors que suñu suñu yeneen nattangoo yi nekk fële boo totalisé li ñu am lépp ngi ça tourne autour de 3000 alhamdulilah